tonton ñëw ah, na. waaw ñëw naa waay ci sama xarit la Eva la tudd ci koñ dëkk nee na dafa maa gis mu ma neex ko mu ñu woon test ma tey. ah ça va Tons. maa si jàmm maa ngi si jàmm. ça va kontaan naa de. xam la gën la noonu la nit bu baax la ah. noonu la si baax nit bu baax la. maa ngi si jàmm baax maa si jàmm waaw. alhamdulilah ma kontaan naa ma bu baax a baax ah. waaw bi moom ñu lay jariñ quoi. sa xarit la mu jaral la nga déplacé wu ñoom seet si ko mbégte la bu baax a baax. ndeysaan mu baax rek. ok la porte est largement ouverte def ko ni sa kër ah. d' accord ok Khady. kon maa ci bir après nga paral ko incha D'accord, d' accord D'accord. Khadi. Khadi. Khadi. Naam. Aro. ça va. ça va yaa ngi toog. maa ngi toog ça va. ça va na kay tegi. ça va bien. alhamdulilah. xam naa ne yaa woon ci waañ bi. waaw maa ngi woon ci waañ bi dàggali kii bi. ok maa ngi jégalu ci dérangement bu baax a baax. voilà. donc bëggoon sûrement ñu waxtaan. ndax dama gis copine boobu keroog mu def acte bu rafet. keroog bi ma présenté xamal ma ne sama copine la. Hmm. ma gis dérangement bi mu def ñëw mu jaral ko mu seet si la. mu doon acte bu rafet rafet ah. bu bëggoon nag noo ko mën a jàpp tamit euh, na nga ko a jàpp waaw te xam ne loolu la xarit di jariñ comme d'ailleurs ñi fi nekk bari na mais mu jël tànn la def la li dafa doy ah. dëgg baax la vraiment bi ñu xamante yàggul mais gis naa ci moom ay qualité yu baax. yaru na dal na teey na man nag daf ma neexoon xanaa kay moom moo ma njëkk a euh, prouver sentiment mais man noonu la ma neexee. parce que maa ngi doon gis ci koñ miinu ma ko nag bu baax avant ñu miinante ma gis ko mu baax di dox ndànk tey nit ku baax la daal. non ku baax la ko xoolee rek boo xoolee visage rek da ngay <laughs> ku baax la quoi. ku baax la ku baax la ku baax la. ku baax ah, bien gën la jàpp rek ah. waaw incha allah gën a la jàpp parce que ku baax la ku baax tamit jafe na ah. ok a baax na <laughs> sinon naka mu. ok d'ailleurs loolu kese la woon d'accord kon. ok mu ngi lay joxe mais pardon xarit pardon xoolal waaw am numéro ma. numéro Eva. waaw numéro mooy. non numéro am nag yoraguma ko mais tënkee dinaa ko lijjanti ma jox la ko. Euh, waa defal loolu lijjantil ko. c'est juste que ne dama gis acte bi def mu doon acte bu rafet. mën nga dëkkee. te yow laa ci waxal. mais foog mu woo ko moom remercier ko bu baax a baax. d' accord loolu kese la ah. naa jël numéro ab naa ko jox. li jëntil ma ko nag dégg nga. d' accord waaw ok waaw maa ngi ndeke soriwul. ah soriwul dana xarewul xam. mais sinon yaa ngi cool. maa nice ah. nice kay. maa sonn ma ci yoon bi. non sonn ma. Hmm. sonn ma daal kontaan naa. Hmm. donte sax temps bi ko. mais dama ne woon tey lu mu xat-xat waaw ma ñëw jàkkaarloog si jëm donte jar nga ko mais li saase mooy depuis bi ma la yóbbaalee si moto bi ba léegi à chaque fois bu ma toogee sama xel dafay nekk si. حنسافر واو اوكي ملكي طبعا خليك لك كنت امشي ما غادي نقول انا ايضا مين شو عندي nagyra lii de la mel ngi yor taxantaanam ah gis nga nañ bàyyi ah mais dañ ñuy fiire ok mais comme li ma la wax léegi temps bi mayu ma ko mais dama ne lu mu metti metti dinaa ñëw jàkkaarloo ak yow parce que man ci service laay liggéey benn tamit millions yi li muy jaar sama loxo dafa bari. loo wax ni day tege sa loxo nii. non day tege sama loxo lu bari moom moo tax yenn toogaay yu bari yi sax du ko mën. feeñ na <laughs> kaw ma lan la kay tax bàyyi taxas bi bàyyi bàyyi tourne kay. aywa kon mooy jàmm kay saal baa ngi bàyyi lii bàyyi dafa dëgër bopp waañ yeeg duus saal baa ngi toj. dexa i dexa booy Aïssa. mbaa jaamu ma gënoon a soxla sama àdduna di ko rëbb ay weer. moom la ma sa waay andil. Eva bu dem bi ma duggee ci salle bi daal gis non réaction bi ma amee sax dama kontaan kontaan ba xaw ma lan la war a wax ma far soppali ko <laughs> ko kan am na may bi may doxal. nga xam ne moo yor léppam. la moom daal. la dinaa xamal. sama mentu service yëpp moo ko yor de. Hmm. waaw. te lépp loo bëgg si xaalis nag désormais tey bul ma sax di woo. woo ko lépp loo soxla dina la jox. ah génn image pour ma xàmmee ko. ah yow nag wax dëgg yàlla waa nga koo xam na man Omar ku ma xam ko. Hmm. ku ma xam-xam ko gis si bët. koo xam <laughs> mais man moom man maa la war a bu baax a baax parce que jour bi ma déposé ci moto bi ba léegi. amana bu ma fa baye won leneen man na fa mën na ma faa fekk. non jar nga ko. man mom aw ma sa fay. no jar nga ko man maa la war a hmm. parce que ku melne yow. no lenen la dal lenen la xam nga li ma bëgg wax. mais baye ma dem après man da nga gëna yaatal. da ngay dem no baye ma dugg. yaa dem ma ngi dugg. kontaan naa nag ah. Oke. Ah. <laughs> <laughs> سميت سيرفيس ايدي الله اكبر man nag maa ngi soogay am combat ay million qu'est-ce que jubut sax ay million la wax de daf nañ loolu la wax am naa combat jógee naa si ñaax fay day combat ay million lay laal laal ay fo dégg yow laa tuddoon roi des arènes mais nag temps yi sa ndomba tànk dama koy dindi ay takkal naa ko Aïssa. non Aïssa kenn du moom. ci war nga toll nii ndeket xoolal yàgg bëgg kombaam gi yàgg bëgg kombaam yëpp ndeket xoolal bu jëlee komba rek. nga xam ne kii du jaay ci ba pare day ñëw rek bu jëlee komba rek laa bëgg tas non. <laughs> kenn du yow. day yëngu rek ma ngeen doon ci wala la. Eh, ci yow yow kenn du yow. ah booy sa nga fi indi moom nga defar ni ba mu baax. yow da nga yëgul li xew. yow li xew nga yëgul yow. voilà ki nga mën kii sama àdduna yëpp moom laa ci gënoon a bëgg a toog ak moom benn mbir wala ma gis ko rek. mbaa du raykatu nit lu xew. est-ce que xam nga li xew. maire hmm. bi sama maire bi. waaw ah, ah. lépp moo ko géré. déedéet. nee ma xanaa neex. léppam laa gaañ bi moo ko géré te xoolal mun moon a fexe ba am possibilité pour toog moom wala moo wax ak moom yow def nga lépp yow xoolal kii waaye. kii ndeke day kii kii day tuus non kii <laughs> affaire yaa ngi doog a neex na gis nga xam nga. yéen a soppeeku ne àndandoo yéen ñaa ñi nga xam ne mosoo leen a mane. dañ ciy def coalition ànd xeex la. def loolu defal loolu. kii de nitu intérêt la. gis nga lenn laa leen di gis nga waa ji lépp lu mu yor ci xaalis lépp doomu dërëm bu mu yor dinaa ko récupérer teg ko fii sama loxo. waa ji bu dem coalition du ko yóbbaale. Eh. man yow laa gëm de. amut de amut duñ cëppoo daa ko mu cëppoo du yóbbaale yéen. <laughs> est-ce que dama koy yar sax. yërëm naa ko waaye naa ko eh na sa xol sedd. man kay suñu toll nii laa hmm. yow daal yaa ngi noonu. instant bi nii man maa ngi sa ginnaaw. Oh, loo wax loolu laa wax loo waxul waxuma ko kii moom fi mu toll da nga koo da nga koo karawaase. kii la moom moromam. vitesse nga ko romb vitesse. fi lay di bànn bànn lu jaay jàpp xam nga du ma sa man mii de man Eva. waaw man ngeen jàkkaarloo li ma tucc tuccee nii. <laughs> yow ñoo lay jàpp di la timbi tibbee na ceebu dëcc. yoroo dara. ma ne ma ko ngeen di maa ko raw bàyyee naa leen ko te xam ne kii. day wor de gannaaw ubbil ne fu tooy mu dal ku gis na la ne yaa ngi dem waa ba nii boo indeetee rek dem kii kon kii dañ ko yàpp ci suuf ak dërëm lay wër Papa, bàyyi ziare sant na yàlla bu baaxee. liggéey tey kon yaa fi ne. sa papa lay xaar di dafa war a am fu ñu war a ànd. liggéey tey. ah yow de yàkkamti woon naa laa gis sax. xam nga ni Kamu naa maa ngi koy jéggalu nag. xam nga maag yow maag sa papa benn lañu. waaw mus yang am coow mus ñu réeroo. dëgg la yow nga juddi suñu kanam kon nag soo ñëwee Sénégal. Mhm. ma la fiy dénk te ñëwoo sama kër. Mhm. xam nga loolu jaaduwut. beneen bi des tamit. Mhm. naa la xaw a ñaaxal tuuti ndax xale su solee daal bàyyi mu yem ci moom képp. am na sas wu rëy. Sénégal nag xale yi nag dañoo baaxoo ku jógee bitim réew su ñëwee. nañ koy dalalee. du baax. dëgg kon na nga gën a moytu. gën a am jom. incha allah na nga gën a téye sa pàpp bu baax a baax. incha allah tax ndey ji bu ko fàtte ci ñaan. ndax loolu kese la am. dëgg euh, soo jugee fii nag. Hmm. nit moom su dee liggéey. Hmm. lii dolli alalam ak lu koy protéger. Hmm. na xale. mooy soxna guy toog ci wetam. doo doo xale magum jëm nga kun la soxna nga ne ko doom a ngi nii. loolu dinaa la ko dégg. Mm-hmm. waaw. papa <laughs> avant tout damay jégg lu baax a baax parce que fekk gi ma la fekk sax bëgguma koon damaa bëggoon nag ma ñëw ba sa kër indaale la sa sëriñ waaye daanaka boo gisee bu mu ñëwee ba tey daanaka tooguma benn yoon des fois ma génn yóbbu yóbbante jàmbur yi des fois ma génn def yu ndaw ñëwaat mais nag maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax parce que ni ma ndambe sama pap noonu laa la ndambe yàlla baax na ndax ya. ni ma jàppe sama pap rek laa la jàppe parce que oh. gis naa ne yéen ñaar lu ñaar kenn ngeen dëgg la voilà maa ngi remercier bu baax nag dañ bàyyi bu baax ah soo yow yàgg nga de ah, adama waaw xam nga nag ah yow de dama jàppoon ni sax ma dama yow doo ko bàyyi fa ñuy dem moom xam nga fa ñu waajal waaw looloo tax naka mu sant yàlla baax yaa ngi si jàmm baax maa yàggoo fi man ngi doon xool ci biir sax fekkuma la fi mm-hmm. ah, waaw waaw boobu de xam nga rek mm-hmm. maa ngi ci mbir yi waaye yaa ngi waxtaan ak sa sa doom. waaw waxtaan naa ñëwagul kër ga nag. ñëwagul kër ga maa ngi koy xaar. xam naa war na ñëw seet. waaye léegi nag xam nga ñu def dañuy dem. waaw ndax heure baa ngi dem te duñu xaar. kon mën nañoo dem. aywa dañuy dem ñu dem waaw. ah papa yi soxla naa la de. Ah,